mënoon a dégg fépp ci salle bi yoon na pour Adji Raby Sarr ëpp na dafa doy justice war na def liggéeyam ci mbir bile loolee di ñaxtu boo xamante ne organisation défense droit des femmes di ñaaw lu bile mbir ak lépp li nga xamante ne tukkee na ci. que ñun jigéen ñi loolu la xeex que problème bu amee nañu bàyyi daal di def liggéeyam euh, euh, li nga xam ne mooy organisation jigéen ñi aussi di xeex wàllum droit respect aux femmes aussi. di jàppale ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr ci wéetaay góor nga xam ne wéet na si ndax jigéen nekk na loo xam ne dafa vulnérable que dara bu xewee rek moom la ñuy pointé du doigt moom moo waral lépp am. góor la naam waaye militant bi nga xamante ne xeex ak ak yelleefu jigéen yi yiital na ko bu baax Aliou di dalal xelu jigéen yi ci lu soxal seen plaidoyer bi lee. léegi balaa ngay dugg ci politique bi lépp li nga xam ne day aar ki nga xam ne moo néew doole ci askan bi daan toppatoo yi nga xam ne ay xale lañu ba pare am ay problème mental mu wax ko noonu yéen ñi jigéenu Sénégal ñuy ñaan suñu borom ku leen tuutil yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla wane jigéen bu tooñee xam naa ne sama sama borom du la jàppale waaye ku mu ku mu di nga ñi mën a jotandi nag ci seen objectif jigéen yi tàllal loxo képp kuy organisation féminine ñu lëkkaloo liggéey loolu benn yoon violence nga xamante ne ñoo ngi koy jëmale ci soxna yi rawatina bi nga xamante ne Adji Sarr dund na ko ñaari at a ngi nii.